ba fa kon liggéey bi dëgg ci man rek yàlla def na bu jour bi ñëw man maa ngi tudd Maimouna Sadaaw maa ngi juddu fii ci bëggee xam nga man depuis bu ma nekkee xale ba léegi man dama bugg xale rek oh ñu toog ba benn jour rek nee na ma benn concours am na man ban ban concours nee na concours monitrice nan lan mooy concours monitrice a ah, monitrice day moom day nekk comme jardin d'enfant di yore xale di gi man ah sama yaay man de dinaa ko def waaw xam nga man loolu moom ma poussé rek. comme temps yooyu nag euh, xam nga nit bi bariwul mais maa ngi sensibiliser maa ngi góorgóorlu rek. waaw dama monté kii bi parce que le début. du luwa euh, dama leboon kii sama benn camin moo ma joxoon luwaas lebumu ci banque mais léegi maa ngi loué encore ma maa ngi yore ñaari monitrice et pourquoi j'ai monté les damay dimbali sama xale mais damay dimbali yaay xale parce que yaay yooyu les femmes maintenant c'est comme les garçons képp ku ku kii rek day xëy lu mu am ci jardin d'enfants bi waa am naa une grande non waa am naa ci xel alhamdulilah lu début pour mu toog ci chaise jàkkaarloo ak caméra c'était très difficile mais bu mu éggee ubbi école ba léegi parce que maa ngi am formation yu bare bare bare maa ngi gis nit mais amul benn gàcce pour dugg wala toog wala waxtaan wala lii man man loolu rek doy na ma sekk dëgg yàlla pour bu góor wala jigéen rek bëgg a ubbi sa jardin rek nekk dégg ci yow rek am woon tous bépp jour la laa mais ba fa kon liggéey bi dëgg ci man rek yàlla def na bu jour bi ñëw mais maa ngi xalaat ubbi lekkool élémentaire levez les ardoises comment on lève les ardoises est-ce que comme ça c'est comme maa ngi tudd Fatou Idrissa Niang juddoo ci Kéyadi Cuub may cuub di jaay yor sama bitik man dama daan liggéey légume laa doon jaay première fois comme dama ciy perte tout le temps naa ci génn daal xool cuub bi moo ma gënal. suñuy mag ñooñu ko jàngal ndax ñoom ñoo doon ñoo njëkk a cuub waaw ndax samay waajur dunduñu kenn si ñoom dunduñu yàlla ak samay mag ñoom laa am amuma keneen ku ñoom jàpp ci bitik bi ma siy jaay. waaw ba jafe-jafe cuub bi balaa ma koy am dama ciy sonn balaa may am client tamit sonn naa ci trop ndax dama ci damay dem ubbi bitik suba ba ngoon doo am sax ku ne noonu laa nekkee noonu laa nekkee ba am un mois nag waaw li ma daan li ma li ma doon lijjanti ndax dama daan def estati damay dem samay su ma defee samay estati samay xarit waaw nii laay def ba nit ñi xam ko ba gis ko bëgg ko ndax dessin bi moom nit ñi bëgg nañ ko ndax dama kaa dessiné dama xalaat toog dessiné ko moo tax nii la koy nii lay génne waaw maa ngi jaay di yónnee Nouakchott yónnee Sénégal lu ma lu ma bëgg a jënd dama ko ciy am ndax su jaayee macha allah dama ci am naa ci njëriñ bu baax daal ndax gis naa ci sama bopp moo tax bitig bi dama kaa ubbee eh, damay ubbi chaque jour damay ubbi ñaw bi ak woñ bi ak cuub bi ak tisi yëpp dama ko ci calculer mooy damay jënd cuub jënd ñaw jënd tisi bi yëpp ci la mais dina dem ba neex ndax bu méttee xam nga liggéey moom faaw faaw mu métti bu méttiwul doo ci am dara mais boo ñëfee ba métti ci ngay soog am dara dinaa ko jàngal ba nga xamante ne <laughs> man la booba ja dëkkaroo sa Mauritanie ma la dugal ci restaurant sama goro moom ci intéressé wu ba ma dugg ba mu ñibbee Sénégal nag ma daal ni xale yi ah léegi nañ jéem pexe pour ñun tam ñu ubbi suñu bopp heure boobu amuñu woon xaalis amuñu woon fu ñu koy jëlee ma ne kon nag nañ dem CAPEC bi ñu leb ñu dem CAPEC bi la njëkk a leb bu ñu njëkkee mu jox ñu bu ñu joxee ñu commencé ba ñu commencé CAPEC bi ñu dem ba ci biir ñun ñu toxu fii samay doom yi jigéen yi nag ñoom laa wax ñoom laa jàppanteel ba ñu affaire léegi nag ñu def suñu démarrage bi ñu démarré ci bii lii moo indi démarré bi fii ci PK7 ndax xam nga boo toxalee dara nga indi ne rek dootul am kiif doole bu mu da yi yàqu na yi def nañ milieu bi aussi def ci am importance parce que fële millier bi xam dañ ko xam ndaxte centre ville la wante ba ñu toxoo ñëw fii c'est difficile pour ñu am ku ñu dimbali nu mu munti doon bu ñuy ñetti nit sax daañ ko continuer di def ndax xam na ni incha allah tôt ou tard réussite lañ ci am ci yàlla and léegi nag lan mooy sama problème moom mooy gérer ndax xaalis man ni ma koy gérer du noonu temps yi laa ko comprendre ndax bu njëkk dañ daan def lu ñu jaay rek ñu fay si lu ñu war bu ñu fayee suñu employé ba pare ñu denc duñ ci denc dara dañuy jël bu weer dee ñu fayal xale yi fayal lii fayal luñ soxla daal ñu jël ko. loolu man léegi loolu mooy sama problème léegi loolu laa bëgg ku ñu jàngal ci loolu nga dugal ci sama njaboot ci loolu ba ñu am kii à l'avenir ñu xam nu ñuy gérer seen ci conseil bi ma leen di jox bi benn la dama bëgg nit ñi intéressé wu ci fast food ñu jàng ko xam ne métier bi du métier góor du métier jigéen métier bi métier la bi nga xam ne boo ko jàngee ëllëg si bi lay jëriñ. foo jëm dañ la jëriñ ndax lekk foo jëm jëriñ la bato yi soxla nañu lekk foo jëm daal lekk moom foo foo jëm dañ la jëriñ merci